mbokk yi ñuy teewlu à chaque fois ci point luttetv.com ñu ngi leen di nuyu bu baax ku ci nekk ci turam ak ci santam te lundi 26 septembre 2022 ñu ñëwaat ak yéen ci yéen kaay ma ci ànd ak Boucar Ndour kor mam borom siin ak Saloum ak fan sax Djilor boo waxee si nekk Djilor waxee si nekk Saloum rek dajal nga fépp rek mu deratul nga si teg feneen parce que feneen foo wax si fi ma moom rek mu ngi ci biir Sine wala mu ci biir Saloum Omar di la nuyu di la ziar di nuyu mbokk Sénégal rawatina mbokk internet Lutte TV tey la lundi 26 ah, Omar septembre ñu ñëw ak yéen seen kaay di rek di ñaanalaat Batalo Joola ñi mu yóbboon yëpp yàlla na leen ah, ba ca Gambie di nuyu Père Ndongo Cissé di jë Babacar Sarr suma waa ji borom Birkelane FM di ko nuyu moom ak waa Saloum yëpp yëpp yëpp Omar di ñaan jàmm si Sénégal di ñaan jàmm ci Sénégal yàlla def dara ci poche yi incha allah journal bu suñu làmb bu kar ci xëtam gu njëkk mu daal di ñëw af ñun ci ki nga xamante ne ni wala ci li nga xamante ne ni moom la Elimane loo tëgg muy ñàmbur production première journée mu indi choc des lébu lagrose bu faas ndakaaru jël daal di koy boole ak quench bu lébu gi lagrose bu faas ndakaaru quench bu lébu gi moo tax rek mu jàpp ne ah c'est le c'est c'est le choc des combat la boo xamante ni mën na ne ñaari lébu la parce que Lac Rose kenn mënu ko génnee ci lébu yi waaye tamit yaakaar ki nga xamante tamit te moo di moo di Quench nekk la rek même bu ñu nee combat des tamit c'est un combat boo xamante ni ñaari xale la ñaari jeune la ku nekk am ambition ku nekk am lu mu bëgg muy maanaam tey teranga ak loo teralee say waajur ak loo teralee say mbokk kon maanaam tey buñ ko def affaire yu ethnie yu demee noonu donte sport la bu ñu mënta génne ci culture waaye sport la boo xamante ni tey c'est le gagne-pain de beaucoup de jeunes. Ah, kon nag yaakaar naa ne ñaari mbër la rek ñaari adversaire la rek benn tàkkusaan moo leen boole ah amul affaire de léboog affaire de séeréer affaire non non non sport la rek ku nekk da nga ñëw pour wuti ku nekk da nga dem entraîner ànd ak say mbokk andi jom fu fayda ndam nag suñu borom moo ko moom mooy xool ku ko soob mu jox ko ko. loo gis ci combat bi. waaw combat la boo xamante ni ñaari mbër yoo xamante ni tey ku si nekk tey sa da doon jafe pour ñu jël ko parce que fi mu jaar ak ñi mu daan ñi mu tegle la. Mhm. dafa jafe ñu jël ko donte nag tey am na ñaari combat yoo xamante ni peut-être ñu ko gën a freiné combat mag Diène Kairé peut-être nit ñi dañu xaar si moom victoire amul ndam combat mag kii di double moteur peut être ñii dañu xaar mu daan double moteur waaye gis nga combat bi nu mu demee combat bi yàgg na par avertissement la jeexee moo tax mu génn foofu noonu. Lacrosse tamit dafa pene lool lool lool wala dafa am benn retard bu mu accusé peut être blessure bokk na si ak toog at yu bëri bëriwul waaye Lacrosse tey fi ñuy dégg ñoom Ama Baldé fa lañ ko waroon dégg parce que amoon na élancé bu baax ci demoon na ban demoon na ban ba làmb joxoon ko bopp demoon na tey ba Ndakaaru tey euh, du ma ne Grand Dakar rek mais Ndakaaru laay wax tey ñu bëri joxoon ko bopp si dayo gi mu moom tamit gis nga ko euh, li ñu naan destin boo tax tey moo leen boole ñoom ñaar ñu war a bëre combat la nag boo xamante ni ma ko waxee Omar combat boo xasee ba taaw ku ne mën na daan sa morom ku ne mën na daan sa morom parce que lamb da ngay gis ku ñu faxastalu sax daanu wala nga rëpp moo mën waaw doone kii moo mën kon li war te wóor mooy nañu entraîné jox lamb ji gëddam jox lamb ji àkkam ba jour ba ñu ñëw ku ci nekk li li war a nekk sa satisfaction ak sa satisfaction supporter bu kar mooy kenn bañ la ŋàññi kenn bañ la xas ci këni entraîné wul wala ci leneen ak leneen parce que mbër moom bu ñu ko waxee entraîneur bu wow kongu os coriace ñëw taxaw dernière décision bi nag suñu borom moo ko yor leneen li nga xamante ne ni Boucar fës na lool di ndamu senegal Serigne Dia di bombardier demoon wuti ko suñu borom teg ko ci loxoom ci kaw benn brésilien moom ci ndam lu ñu ko ciy félicité encore une fois. Jules Junior noonu la waa ji tudd daan na a a féete waa ji xale boo nekk ne boo xamante ni tey mu ngi koy am ci MMA moom Bombardier ñu koy wax félicité waat. ne na ko kon ñoo ko si encouragé di ko félicité di ko ñaanal ndam li jik ko te yeneen bokk si UFC nag lañ bëgg mu dugg Mm. parce que gis ne fi waaw ay liggéey yi muy bëri li muy compétir yëpp baax na mais am na am nañ yaakaar ne bu duggoon UFC rek léegi ko gi ba gën a bëri xaalis gi gën a bëri te nit la koo xamante ni day nit ku baax la ku yaatu ku social koo xamante ni am nañ yaakaar ne bu fa duggee revenu yi muy am mën na am feneen fu mu mën a dugg foo amal njëriñ Sénégal foo amal njëriñ nit ñu bëree bëree bëri moo tax nit bu nekkee si dara Omar rek da ko si encouragé lu la jëriñ wala lu jëriñ sa mm-hmm. ko si kon Bombardier ñoo moom Bombardier xel mi mu yor seetlu na torop ñu koy ñaanal suñu borom kattanal ko taxawu ko. écurie olympique de Ngor fa ñoom booy bawal nekkoon tey jii ay xale yoo xamante ne ni làmb bàyyi na leen xel bu baax a baax a baax nekk fa. Boucar écurie boobu am na huit victoire ak quatre défaites. ñu ngi imposé à ce que nit ñi respecté leen. ñu ngi imposer à nit ñi respecté leen ñoom booy bawol fa lañ nekkoon Omar euh, moom nag gis ko jamono ji fàq na ma nga États-Unis tëdd kenn mënatu ko gis kenn mënatu ko am moom booy bawol waaye ak lu mën a xew rek mën nañ ne la relève am na ñu fi nekk ñoo xamante ni tey Omar tey ñu ngi jaayante euh, di def seen kéemtu kattan tey ku si mel ni xeeru ngor ñu ngi ci di jaayante waaye ku ci mel ni sitëbu ngor lamb ràññee ko loolu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax a baax a baax ñoom fëgala bu ngor ñoom ñoom booy Diop ñoom Ibu Diop ah ñoom Euh, Biri Gell yaakaar naa ne daal am na ñu bëri ñoo xamante ni tey foofu noonu ba si fils de Ibou Ibou Diop bi nga xamante ni tey moo nekk seen coach tey fils de Ibou ñu naan ko Boucar Diop tamit gis na ko daaw am yëpp nekk na loo xamante ni tey yaakaar naa ne lu am importance la. xam ay xale lañ ñu leen di tàggat mais li ñu koy wax rek xale ñoom ñooy avenir parce que boo seetloo tey euh, mbër yu mag yi fi nekk. muy ñoom Balla Gaye ñoom Modou Lo jeexal nañ parce que ku si bëri te ñaar ñetti combat da ngay pare kon yaakaar naa ne xale yi nii ñoom ñooy avenir làmb ñoom ñoo war a ñoom ñooy a téye làmb seen loxo Ibou Diop nag loolu la gis ba tax na tey mu jël temps yëpp di ko miser si xale yi jàpp na ne def nañ bilan bu positif boo xamante ni tey déwén bi gën a yokk période amoon na période bu ñu weesu ngor yoof yëpp dafa amoon benn mbër boo xamante ne moom moo leen doon taxawal ci làmb muy Malick nekkatu fi wala boog gëj nañu ko gis waaye xale yi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk bu kar xel dafay dal ci ñoom ci mobilisation ci bëre waaye ci yar ak ci teggin ci avenir làmb xel dafay dal ci xale yooyu noonu Fallou Ndiaye itamit am na trois journées de feu waaye nag journée bu njëkk le 2 octobre la ci diggante Ibou Afia ak Jeex Jàmm combat bi nag Boucar mooy combat bi gën a dangereux man mu loolu laa jàpp. mooy combat bi nar ubbi saison bi Omar parce que jeex jàmm bi su ma juumul daanagul Ibou Afia tamit xale la bu laamu di bàyyi xel ah, mu war a nekk nag journée bu neex a neex a neex a neex a neex moom Fallou Ndiaye taxawal ko nag mu war a nekk le 2 octobre mun na ne tey moo war a ubbi làmb ji ah, ci saison bii nii ñu jëm waaye bu fa jógee nag ah, Guido Séras Ndiaye tamit règlement de compte la. parce que kii Bawol lay waree kii nekk mbëru parcelle ah mu war a nekk nag mbëru mbëru combat yu neex yoo xamante ni ñaari mburu gox la Omar. juróom mbëru loolu nag le 19 novembre la war a nekk samedi incha allah rabi. waaye bu ñu fa jógee nag bulldozer caatu yoof ah combat la nag parce que gis nañ bulldozer ah, di ko sànni xeer caatu yoof bi nga xamante nag mbër la bu laax mu di bàyyi xel mhm. parce que su ma jumul benn defet la am su ma jumul benn defet la mu nekk nag mbër boo xamante ni ci làmb la koy bàyyi xel parce que daan ay champion daan ay ndaanan waaye bulldozer dama koy waxee rek ku ko gis doo ko teg mbër wala ku ko gis danga koy teg benn nooy neex benn yambar waaye mbër la boo xamante ni tey mbër buy respecté combat la mbër bu làmb di jaral la kon yaakaar naa ne nag combat boobu noonu Fallou Ndiaye tëgg war a nekk le 8 janvier incha allahu rabi yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak ak salaam yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm ak salaam Boucar incha allahu rabi mu nekk combat yoo xamante ne ay neex la Sidi Diakhaté le promoteur du rail ñëw na nag ak le choc choc de géant sax waaw ki koy bëre nag du kenn ku dul mbul ak caaka lii moom buñ ko tuddewul choc de choc sax ko xool rek xam ne lii ay géant koy bëri ay géant koy bëri parce que mbul bi tiwaawoon la dëkk ah su ma nee tiwaawoon nag sama xel lay dem si euh, Adama ah borom tiwaawoon boucher di ko bëggee du baax a baax baax a baax waaye tamit su ma nee tiwaawoon si Abdou Gomaay borom axlu làmb ah, di ko bëggee baax a baax baax di nuyuwaat tiwaawoon yëpp rek waaye mbul mii ni champion la mhm. combat day jafe nag moo tax da nga daan gis sax si mbapat yi dem di ko ñàkkante gis nga dernier combat moom ak Auguste la woon Auguste bi mu defee retour Auguste Mbagnick Sène gis nga mbul ni mu ko def vraiment ñu wane fa boppam bu baax a baax a baax Thiaka Faye gëj a bëre mën nañ a am combat parce que mu euh, am combat ñoom ñaar nag comme dañuy jafe ku nekk am combat Sidi Diakhaté boole leen le grand promoteur ah borom Thiès mu war a nekk nag journée bu neex a neex a neex boo xamante nag waaw ah, ñoom ñaar nag ku si génn nag na la làmb bàyyi xel nag gars yi na la gars yi boole sax si si si làmb laay wax Omar na la gars yi boole ci waa parce que bëri na ci ay mbaru simple yoo xamante ne ni dañ leen di mel dafa mel dañ leen écarté ci biir làmb leneen li nga xamante ni gis nañu ko bu kër muy génnub àdduna jën juuf mhm. mu rasu naa benn l'arène en deuil ñu koy ñaanal suñu borom bi woyofal suuf ci kaw te jéggal ko ay bàkkaaram. waaw parce que mu nekkoon vice président euh, bu commission règlement et discipline moom moom moom moom Diène ah, nekk nag koo xamante ni ku baax la woon man moom vraiment desem daf ma bett parce que yëguma feebaram il paraît que ko ah, ah, di ko jaale Manga 2 di ko jaale jal di ko jaale ñi nga xamante ni ñooy ay frère am yëpp di ko jaale Alex Ka superviseur CNG ak lu mën a xew daal ñu ngi koy ñaanal yàlla yërëm ko parce que Kaolack lañ ko am na xam-xam waaye ku doon dund làmb la tey ba bokkoon ci CNG di ko ñaanal rek yàlla na ko yàlla yërëm ba tax na sax réunion bi nga xamante ni ñoom Manga 2 moom la ñu waroon a def dimanche bi dañ ko mujjee annulé levée bi nag hmm, gis nañ daal ñoom Bira Sène Manga mën nañ daal CNG bi yëpp foofu la nekkoon. foofu la ñu nekkoon ñu koy ñaanal rek suñu borom bi jéggal ko woyofal suuf ci kawam. journal bu record daal di ñëw ak ñun ci vacances de l'arène Djily Kébé reporter wasaare làmb moom la ñu dalal. mu yëkkati ay kàddoom ci biir journal bu record comme ni ko journal bi ñu defee à chaque fois ci li nga xamante ne mooy rubrique bii di de l'arène waaw vacances de l'arène Omar koy nuyu de passage rek di ko bëgg moom nekk na koo xamante ni te yaakaar naa ne ku lamb di bàyyi xel la waaye tamit ku euh, na ko ginnaaw bi mu nekkee reporteru lamb waaye daal ñëw na daal di wax li nga xamante ni de mooy tey ay regret ci saison bi ñu am ah, euh, moom lañu invité si dix-neuvième numéro vacances arène bi moom nag li muy déploré mooy maanaam tey mauvaise condition wu reporter yi rawatina nag si drapeau chef de l'état bi joge jógee Diourbel daal nekk na loo xamante ni tey mu ngi koy naqarlu bilan bi tamit tiire na ko parce que nag ku wax saison bu jeex wax bilan boo xamante ne nii war nañ ko tirer ci biir saison waaw waaw gis na daal bilan la bu baax boo xamante ni tey gëj nañ ko gis parce que gis na saison bi ren mbër yu bëri bëri nañ groupe VIP yëpp gis nañ ne daal bëri nañ Balla Gaye Eumeu Sène Gris Bordeaux Tapha ah, ñoom ñëpp ah jàpp nañ daal vraiment. bëri nañ booy ñaa ñoom ñëpp boo tax daal mu jàpp ne ne saison bilan la daal boo xamante ni tey am na ci satisfaction laaj nañ ko tamit ci top de l'arène yi. laaj nañ ko si top de l'arène yi nee na daal Franc Sokh moom nekk na comme top boo xamante ni tey si combat yu neex a neex a neex la waaye tamit gis na tamit tension bi mu yeewoon si diggante Ama Baldé ak Modou Lo jàpp na daal top la si si si si top de waaye tamit fils de Balla tamit top la woon boo xamante ni tey gis nañ tamit ni si ñoom Balla Gaye ñoom Ama Sène ñoom ñoom ñoom Modou Lo duggee waaw. laaj nañ ko tamit ci li nga xamante ne moom mooy flop yi. flop de l'arène. waaw combat Garga 2 Mama Lamine nekk na combat bu boo xamante ni daal moo ko gën a décevoir gis nañ tamit keroog ni mu combat bi eh, demee tax na daal nekk na loo xamante ni daal euh, kontaanu ci lool lool lool lool lool ah, euh, ba combat bi daal gis nga mujjewul am nekk na daal lu ko lu mu naqarlu. combat bu gën a neex wala combat yi gën a neex itam yëkkati na ci ay waaw Ada Fass qualifié deux jàpp na daal combat bu neex la boo xamante ni tey keroog vraiment gis nañ daal ni mu ko waxee rek mbotti bu extraordinaire boo xamante ni tey ma mbott na ko waaye tamit gis na tamit que ne euh, Eumeu Sène ah euh, ci talent bi mu woon tamit digganteem ak Bombardier loolu yëpp nekk na loo xamante ni tey waaw lu ko marqué la. Jili ñëw na ci def booy yi nga xamante ne ni ñoom ñooy révélation wu saison bi. Kaw Gourdin la njëkk a cité mbër la boo xamante ni tey làmb da ko war a bàyyi xel Omar ni ñu koy waxee rek peut-être bës bi tollu noonu wala maanaam mm, bayre bi. par rapport ak yeneen mbër yi ñu gën di lim waaye mbër la bu am talent parce que bu ñu xool talent si mbër tey Kaw Gourdin macha allah gis nañ tamit ñi mu tegalante daan Thiar Daouda Fall a Mandiaye ah beneen révélation Zarko gis na at yi mu toog bëriwul ñëwaat ah, marqué empreinte am daan Baye Gouye gi daan Zarko. Ada Fass tamit nekk na koo xamante ni yaakaar naa ne si loo boobu noonu la bokk. Mm-hmm. ñetti combat ñetti victoire loolu waxi jiiri wasaare la. waxi jiiri déception yi tamit am na ko ci saison bi moo taxit wax na ko. waaw andi na ko nee na nag li bi si njëkk mooy maanaam tey ki nga xamante ni rek moo di moo di euh, lutte san frappe si la ñëw ah nee na Boy Faye nekk na daal ko xamante ni daal xamee ko par rapport ak saison daaw ni mu daan bëree contrairement à Serigne Ndiaye bi nga xamante ni tey ah, jàpp na ne moom moo nekk meilleur ah, si saison bi pour. maanaam tey tournoi mag yi ñu teg yëpp moo ko remporté daal nekk na loo lu am am solo la nee na Doudou Sané tamit def na saison bu baax. def na saison bu baax waaye nag Boucar. Mhm. yaakaar naa ni looloo gënoon a fës ci xët ñu jox leen dig daje xanaa. waaw xëtti daanaka loolu moo si gënoon a fës Omar recommandation yeeg yooyu mu wax si CNG yëpp yaakaar naa ne ku dugg si biir journal bu record di ko gis si xalima Assane Walu Gueye Omar ah, di bëgg ñëpp di ziar